badru yi tuub nan ci yow bu wér te bul faale ka wuy see ka farjaki Moustapha su fekkoon da ngay laaj carte say candidat ni wiiw na yaa wat ña daawoote ña daawaate Moustapha asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu mboolem bi teew ñëpp di ko baax ak mboolem mbokk yi bokk teew sëriñ Moussa mu ngi xaalis ak sëriñ Moussa mu ngi bind ak mboolem mbokk yi teew yëpp bàyyiwuñu kenn ministre bi ma ne waaye day am wax bi ñu tuddee nañu ci yëpp ndax mboolem mbokk yi teew njabootu sëriñ Moussa lañ sëriñ Moussa moo yor sëriñ Moussa Bassir mom sa Abdul Xaadir mu ñew teewal ko fi dina fi jëmm kon mbokk yi man ñu yóbbu ci biir sëriñ bi wax mi ngi nuyu ñëpp te di leen gërëm te di leen sant gannaaw bu sant yàlla bi ko bind te féetale ko Rasulullah sallallahu alayhi wasallam sallam te yaakaar naa ko sëriñ tuba dafa ko toog fii sëñ Moussa di way gërëm bu leen santee ba noppi cant gi mi ngi jiital sëñ Mouhamadou Mountakha mi jëmmi sëñ Touba ci kaw suuf tey di ñaan bu yàgg bi lool te ànd ko wér te ànd ko xelam ba ni mu yéene liggéey mu mën koo liggéey ni mu ko bëgg te ñaan ko moom sëriñ bi wax na gërëm na ko gërëm loo xam ne am na xam tàmbalee waaye yéen ngir bëgg dem ba léegi mi ngi ci kër bu mag gi jàppale ko ci bis bi ko ci guddi gi di ko di ko ci gunge dara na am xelam doole na yaakaaram moom njaboot gi yaakaar seen musuwaay yëpp ndax loolu waaye foofu bu la ndax nit su amul lu lenn te bokk ko yow nga wax ko ne ko leen bokk maa yow ma di ko def seral nga am xolam dara lu am xel kon nag nee na jërëjëf sëriñ Maodo Bachir nga wax ko sëriñ bi ne ko sëriñ Amadou Mokhtar ne moom njabootu seen musuwaar yëpp ak njabootu seen Mamadou Lamine Bara yëpp ak njaboot gi ak ci gi yëpp ay seex te kenn ku ci nekk naa nga ñëw sëñ Tuubaa ñoom ñëpp maase jébal ko seen di ko sant di ko gërëm di ko bëgg ngir nit la ma am moom soo ko waree na ko lam naa ñore nga la ma ñore nga àndoo moom di seetloo ko dara ci bopp yi nii kon nag naan sëñ bi nañ jërëjëf la ca dolli di njaboot gi mu kër gi tàmbale ko sëriñ Cheikh Madi ba sëriñ Moussa moom sëñ am sëñ Mbacké Mohamed ñi ci diggante bi ñëpp ay waajur lañ moo ko rakkam sëriñ na leen sant na leen fa ñu war a ba lépp jag féete lañ kon nag mi ñaan ki defal seen bi bay mën a jagal bis bi yàlla doon ndimbalam ci ñoom te wéral leen te yàggal na fi te dara bañ a njaboot gépp la wax boobu kenn la ca doon ko moo di mi ngi sant meeru dëkk bi ak autorité yi ma àndaloon doon doxal liggéey bi ba agsi fii ñu te dara gàllankoor wu ci sant na leen mu tàmbalee ci gouverneur ñëw ci préfet ñëw ci sous-préfet ñëw ci maire bi ak conseil sëriñ bi ne ngërëmum ci yéen mat na sëkk ndax la bëggoon lépp ci taxawaay demee ko ba mat sëkk kon yàlla yàlla jagal seen lépp mu ñëw nag ci ñi nga xam ne ay parti lañ yu fi ñëw CRG ba ngir bis bi mi ngi leen sant di leen ñaanal ngir nit la ma am loolu moom da loolu di itteem soo ko mënee ne ko itteewoo naa ko du man lu gërëm la ak sant la seeni tur mën jaay gën a na leen léegi ñoom ñi fi ñëw ñëpp bàyyi wu ci kenn sañ gën a jërë ngeen jëf sant na leen mi ngi leen di ñaanal di ñaanal nag ci réew mi saa borom def ci jàmm ku ko mën a bëgg ak ku ko mën a yor na ñëpp maas sàkku ci jàmm te ko te di ko jëfe mooy tax jàmm am ndax lu waay di wut te am utoo ko soo ko amee doo la mbaa doo ko am kon nag yëpp sax ci te ñaan ndax jàmm ci lépp xaj mu wax ne sëñ Maam Cerno yaa ngi wala ministre yi nga ànd yu góor yi ak ak délégué yi bi ne mi ngi leen ak cant ci ki leen fi ganaa gannaaw ma sant yéen ñëpp ci kenn ku ne yëg boo ko jox ak sa jëf jóge ni ci moom ngir jàpp ci bis bi te kenn ku ne ci yéen la nga man ba di ko jàppale président moo la ko jox nga ñëw fi sa jëfi bopp ñëwal fi président mais mi ngi leen di yónni ci président ak cant ak ngërëm ngir li ko wax bis bi ci ak ku yëpp def na ko ba marché bi li ko ci ja yëg ci yëwat la muslaay na ko ba marché ndax ñi fi takkan ndox may tànk te dëkk ci kër gi xam na leen te mu koy def jàppale kër gi daal di ko def te loolu moom mu tàmbalee seen bàyyi sama loolu muy dox ba arsi wala sëñ bi ne ñu ngi sant ci di ko ñaar jàmm di ko ñaar ci réew ab sëriñ nag ji ma am nag mi ngi koy ñaar ngir saafara jàmm ci ju sax gërëm na ñëpp sant na ñëpp li nga xam mooy waxtaan mooy jëmmi sëñ Ahmadou Mokhtar mooy jëmmi sëñ Moustapha sëriñ Cheikh Mbacké Madina mooy jëwriñ ci njaboot bi sëriñ Cheikh Ali ak sëriñ Abdourahmane ak seen topp mu wax ne Touba Rafet def nañ ko ak Serigne Moussa tey jaww leen mi ngi leen di sant di mi ngi ñaan daal jàmm saa woon moom nag nee na mi ngi xamal ñépp ne dafa am kilifa topp ci gannaaw kilifa yow ne lépp ak ci loxo waaye ñaar moom sax ci dara seen musalaat saa waral na jàmm ci réew mi Thierno sëriñ bi nee na sant ko président ñaan naa ñu ngi ko ñaan yàlla yàlla na jàmm ci réew musalaat. li deweytoo madru yi tuub nan ci yow bu wér te bul faale ko wuy seek far jekki Moustapha su fekkoon da ngay laaj carte say candidat ni wiiw ne yaa wat ngir te weytoo madru yi tuub nan ci bu wér te bul faale ka wuy see ka farjaki Moustapha su fekkoon da ngay laaj carte say candidat wiiw ne yaa wat ña daawoo ña daawaate Moustapha